sant goo xam ne lim may indil ci ndolent doomu aadama mënu koo xam ndax yàlla nu ko digoon la in zakartum la asidannakum nee na moo tax faw maa ngi sant jamono bu ne amul waxtu amul heure amul lenn lu ma def sant la lu ma def sant xiiwal la lahu sukuur yi baada amdin xaalidi yaa aliyan an waladin wa walidi sant goo xam ne dafa ànd ak amdu ñii nee ñu asukuru mooy liy feeñ ci say jëf alhamdu mooy sa làmmañ li mu baax léeg-léeg mu nekk kalimataani mutaraadifataani waaye lu mën a xew moo di al itiraaf bi nixmatillahi subhanahu wa taala wal amal bi ma yuqaabiluha lii nangu naa ne yàllaa ko joxe tey dinaa jëf jëf ju mel ni lii mooy sant ko borom bi wa taala sëriñ Tuubaa nag nee na man fu ma toll damay sant sant goo xam ne ki ba koy sant warees na koo sant ndax mooy kii ni cundum amul waajur amul doom amul àndandoo moom kepp la kooku sant ko yomb na waaye keneen koo bëgg na sant day da ngay sonn léeg-léeg gaa yi di ko def ci micro yi di lim ba yàgg mu ni bu ma limee sax damay jiw wax nga dëgg dangaa ngaa limul kenn booba waaye billaay boo yeman ci kenn ki mbaa kenn ki tax ngay wax doo sonn waaye ba nga tegee fee yàlla nag di lim di juum de mbaa doo desal diw ñëw na ci mbooloo mi diw ñëw na ci agsi na diw mi ngi nangam ak nangam da wax bay bëgga dee te du àgg waaye bu fekkee ni li ngay wax yàlla képp a tax benn baat doy na ci moo tax Serigne Touba nee na man koo képp lay sant moom mi nga xam ne nii amul walad amul walid amul sabiha amul kenn moom képp boo ko santee mu doy xam nga ku bëgg kooku boo ko santee mu bëgg la ku bëgg yàlla boo santee yàlla mu bëgg la kii xaar ñu beral ko cantuk boppam bëggul yàlla waaye sa borom bii la bind defal la xiiwal nga gis ku kontaan ci xiiwal ga sant ko doyoon na la bu fekkee yàllaa tax Sëriñ Tuubaa rek ku bëgg yàlla rek bëgg na la ku bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg na la muhiba kulli muslimin wa muslima nee na adresse weesuwul ku dib julit bu góor bu jigéen bëgg naa la du fa nekk détaillé bëgg naa diw bëgg naa diw bëgg naa diw ndax xam naa ni sunu borom subhaanahu wa taala muy ki bind jaam yi liggéeyal ko mooy liggéeyal jaam yi liggéey ci biir jaam yi ndaxte alxalqu iyaalullah alxalqu iyaalullah ki gën ci nit ñi mooy ki gëm a naan defaral nit ñi moo tax dundam gépp mooy mu nekk njariñul jaam yi sëñ Tuubaa ñaan na bay ñaan lori jaam yi yàlla bu ñu ma daal waaye sama lor yàlla bu mu leen dal xoolal googu wàccee boppam googu yëg yàlla kenn ku ci nekk ci nun boo ko laajee ki fi gën boppam lay wax day jàpp ni moo fi gën te yàlla tere woon nanu ko kat tere woon nanu lool kuy woote woo ci askan wala muy woote woo ci jikko wala muy woote woo ci xam-xam defal lépp te yàlla tax boo ko defee rek ki la war a bëgg dina la bëgg te doomu aadama nag mu ngi doon waajoo xam ne am na lu luñ ko bindaale lu baaxul mooy loo bëggal sa bopp ñu bañal la ko loolu moom fa la nekk loo xëccal sa bopp lànk nañu li ñuy bëgg-bëgg gaa yi saa boo yëkkatee sa bopp wane na yaa nekk ci kaw ñépp yàlla xam na ni ba nañu la amoon na fi jàmbaar ju fi jóge bu yàggul rek Mawlana Cheikh Abdoulaye Al Ahad dem leen ngeen xoolaat band yi bu daan wax ci màggal ba jàkkaarloog autorité yi day wax ñaari baat yamuy wax jëmale ci ñoom daan ngeen may ma tuuti nag ma wax ak sama bokki taalibe yi yi nga saa bu ko masaa wax boo ko xoolee même jëmm ji dina war a ngi ko <laughs> même jëmm ji dana ko soppi toogin wi rek da ngay gis ni bàyyi na leen bu yàgg ay bokkam lay waxal ñan ñoo di ay bokkam ay taalibe bokki taalibe yi sama bokki taalibe yi ba mu ko waxee rek kenn diglootul taalibe boo romb ci mbedd mi moo tax rajo boo mas a romb ci marché buñ ne Cheikh Abdou Lahad tey wax ñëpp naan dégg kenn du yëngutu ndax dara cee boole moo ni may leen ma waaw sama bokki taalibe yi kon kay ab taalibe day taxaw diglu ba xam kii lu mu koy wax booba da doon jàngale rek da doon jàngale ni sëriñ bi mooy sëriñ bi nun ñi ci des ñëpp ci rang bi la nekk rang bi nag dina am ñu jege ak ñu sori waaye rang bi ñëpp ba bokku tur daraja yaa ngi ci kemtalaay ni nga gën soree waaye saa boo ko wooteelee sa bopp gaa bala fa ñoom dañoo bëgg sëriñ bi doon ko jàngale jamono bu nekk li ñu am ci sëriñ bi ñimewuñ ko tudd sëriñ bi lañ ca amoon ñimewuñ ko tudd Seex Fallu waxoon na ko bi'tubuna watiya bil irada lakum li kay ossa bi xarqi aada min baadi mastaraytumuha minni aadaytuha lakum bi xayri manni faltaqbaluha ya malasu karama la siltumu bayna albaraya alama sëriñ Touba ñi ngi wax ni yaway sama bàyyi may sa doom jaay naa la ko bëggatuma koo dégg jënde ko nekkub taalibe boobu sëñ bi laa doon wax ni sama mbokki taalibe yi mu ni loolu laa bëgg a dégg bu ma la jaayee ba moom sama njëg joxaat naa la ko addiya ba mu koy firi maa ngi déggal sama bopp mu firi wa yooyu mu ni këyit woo bindal sëriñ bi ni ko dama la koo jaay jënde ko taalibe bëggumaa doon sax taalibe buy seex bëgguma seex li gaa yi xëccoo nga xam ne kenn ku ne yaa ngi koy kéré kenn ku ne yaa ngi wutus ceex bu jaree dem Casamance wutik ndomba sax di ko def bu jaree dem Guinée Bissau di nga ko def Serigne Fallou noonu moom bëggul xam nga ni kon amul njariñ bu amoon njariñ mu bëgg te nee na sëriñ bi lu muy joxe danañ ko bari le maag sama mag ji Cheikh Moustapha ñu ni ko lu tax mu ni lu ko waaye defal defal nan ko ko defal nañ ko sax saala yaayi mbaar bayal nañ ko sunuy loxo bindkati kaamil yee bokk nañ ca bay joxe yee bokk nañ ca addi yee joxe nañ ca bokk nañ ca kon kuy ciiru bàyyi leen mën ta nekk kookee nag moo wax wax ji mbokk mi su meekul liggéey sëriñ bi te xam ni moo am njariñ moo am njariñ kat liggéey sëriñ bi it mooy li mu bëgg ci diine nga def ko loo mën a def ba ñu ne allahu akbar waccal te dem ca loola loo mën a def ba ubbi téere quraan bi waccal bul def leneen fii la sëriñ bi nekkoon njabootuk sëriñ bi fii la nekkoon fàtteegunu ko xaw ma ko war a tatone waaye du nun ñii ñi fi làq ñeen fukki at ndax gisoon nga gaaya gaaya ba nga leen gisee fa ñu nekkoon foofaay yoon wa ku jàdd da ngay jàdd rek waaye yoon wa moom fekkoon ngeen ci gaaya gisoon ngeen ko kon nag yàlla na yàlla teg ca yoon woowee te dimbilinu ba nu xam seen bëgg-bëgg te di ca def la nga xam ne nii moom moo leen doon gërëm loo démb te di gërëm loo itam tey nu nekk ca te sëriñ bi dara du ko doon ngërëmam lu weesu li mu digle nga def ko li mu tere nga bàyyi ko li mu nu digal mooy ngooy ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngooy ci téereb yàlla bii bëgg gaa yu baax yëpp lii leenu sëriñ bi digal leneen lu la waaye wax moo ko keryeel boppam bàyyi ko moom comme du fay comme mënta fay bu la keryeelee dara demal demal kat te dawal te xam ne dalay nax ci dul naxe soxlaa lu dul dara dara dara bis bu nekk dañuy favoriser rek joxe addiye joxe nangam ak nangam wallahi loolu du mbir mi sëriñ bi loolu tax ko war a jóg de yéen a wax ni sax amuloon poos yéen a wax ne loo ko mas a jox mu la tegal fee boo ko joxee alxuraan mu jóge ñaari loxo yi xam nga ni kon loolu la fonk li ci des moom il faut nu fonk ko ndax dañ koy jariñoo doomu aadama moom li muy jariñoo faaw mu fonk ko léegi danoo bëgg a dund kon faaw nu def li nuy tax a dund waaye nag li nuy tax a dund ëllëg foofu la nu sëriñ bi wowoon te feekat at ye daa bari te sëriñ bi noona dee liggéeyal yàlla àddina dee ko liggéeyal kam talaayu li nga fiy toog àllaaxira nga liggéeyal ko kemtalaay la nga fay toog xam nga loolu lu muy tekki mooy dépense bi nga ber ngir àllaaxira seetal ni doy na fa dépense bi nga bàyyil àddina seetal ba xam doy na ci waaye foo xam ne nun ñi ñëpp jumaa ji boo leen recensé woon ñu toogaat fi ñeent fukki at xam nga ko xoolal lii ni mu gàtte te yóbbuwoo fa lu la dundal benn bis sëriñ bi nee na du xellu de sëriñ bi nee na loolu du muuste de li dégg muuste mooy yóbbu lu baree bari fereet lu baree bari te fii nga bàyyi ko xel ni amul solo xissa bo xam ne kasim Xaasim Mbàkke radiyallahu taala anhu moo ma ko nettali nee na danoo toog man maa ngi toog par maag sëñ Babacar Gueye ak moom koor la nuy dog soxnaam indil ko gerte ba mu rafet lool fekk da koo lakkaloo pour ñu dog ci mu teg palaat bi mu ni ko dellool sëñ kër Gueye ni ko déet teg fii nun koy lii bëgg nañ ko mu ni ko demal lakkal ma gaalu gerte gaal wañ daan lakk ca àll ba mu ànd ak dóom ba mu indi ko muy jote par benn loxo yu taqrib mu ni lii damaa am soppe boo xam ni moom la nu mujj a tiim mooy Serigne fallu nee na li nu mujj a tiim jëfandikoo maag sëriñ Fallou lu mel nii la woon keroog sax nee na ku dëkk Ndakaaru bokk na ca daa daa daa yërëm sëriñ bi xool li ba loxo bi fees mu jox ko ko sëñ bi ni ko waa jële yéyal am naa juróom la ñii fi ñu tegoon seen bopp yal na yàlla tàcc seen barke wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.